alaikum. Euh, mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu fii ci commune Daru Salam ci terrain wu dagg ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp euh, di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne tey mooy sunu sëriñ muy El Hadj Bassirou Ndaw di xalifa bi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ak moom ak njabootam ak ñëpp di nuyu sëriñ yi di Touba Saloum ñu ngi koy nuyu bu baax ak njabootam euh, di nuyu ñi fi teew ñëpp tey ci stade bi ñu am mbégte ak kontaan bi ñu tuddee li nga xam ne tey mooy final bii tey final bi nag liñ ko tuddee mooy dañu am benn mouvement bu ñuy wax ànd dooleel Laye Dieng ñii tey ñi membre yaa ngi nii am na ñeneen ñoo xam ne teewuñ parce que ñeneen ñi ñu ngi Dakar ñeneen ñaa ngi feneen mais ñëpp mënuñ teew mais ñii tey ñooy membre yi boo xoolee ñoo teew ci bes bi nga xam ne tey moom lañ ñu parrainé muy ànd doole Laye Dieng muy kuréel goo xam ne nag euh, ci commune Darou Salam la yaatu ci 63 village yëpp ñu am mbégte contentement jël li nga xam ne nii mooy parrain bi donc lool moy suñu téway tay fi voilà donc comme niñ ko waxé rek euh, li tax ñu nangul ko parce que dañu nekk di politique ci département Nioro commune Darou Salam bon tay lepp lo xamné ni jeunesse bi talal nañu loxo euh dañuy ñëw wuy ci leen parce que avant tout la jeunesse mënoo ko dëkk mënoo ko développé wala réew mënoo ko développé te jeunesse bi bokul ci bon jeunesse bi bu ñamé lu ñu bëgg ci ñun muy doon seen parrain dañuy ñëw jappalé leen ci lolu moy suñu téway fi defoon nañ ko fi nak parce que duñ gan tay fi yàgg nañ fi parrainé doon parrain ci benn final yoo xam ne yi fi at yi jaar yëpp ñu ñëw ànd ak suñuy xarit ak suñuy am di jàmm def final bi indi li nga xam ne nii moom la ñu laajoon bon tey biñ ñu capté tamit woo ñu nañu dañu bëgg a encore ngeen nekk suñu parrain dañ koy nangu rafetlu ko ñëw teew ci bés bi moo waral tey ñu ñëw mënuñ lim ñëpp mais suñu xarit yaa ngi nii dëkk nag village bu ne nekkul benn village moo fi jóge village yi ci commune Darou Salam ñëpp ñu ngi fi rawatina yeneen communes yi nga xam ne ñoo ne si département bi bon tey ji dañu am mbégte contentement ci diggante tournoi bi nga xam ne tëggoon nañ ko fi Tamsir Deme nekk Daaru Salaam organisé ko fi mu doon tey tournoi boo xam ne douze équipes ñoo ci bokkoon ñuy dem ba ñaar des ci final muy jeeg ji bu Daaru Salaam ak ki nga xam ne mooy waa Kër ma Madiabel tey ñoom ñoo nekk di jongante li nga xam ne mooy coupe bi donc que le instant bi ci tiro bi lañ nekk ñu ngi ci 1 1 euh, ñu ngi lay ñaanal que gañ ki nga xam ne ne dañ ko gagné tamit ñu ñaanal ko déwén bu ñu fi yàlla yóbboo euh, yàlla may ko ndam donc tey di sant ñu ngi tàllal suñu loxo gox bi yëpp rawatina jeunesse bi comme niñ ko doon defee at yu nekk dañ koy dañ koy dañuy dañuy nekk di politique di leen jàppale heure boo xamee ne soxla nañ ñu rek dañu nekk à leur disposition donc loolu def nañ ko ay at dañu continuer di ko defaat di gërëm ñi nga xam ne tey ñoom la àndal euh, muy ñoom Moustapha dëkk Yàlla ñoom Aliou Cissé dëkk Ndama ñoom El Hadj Cissé dëkk Kese Ñamadou ñu dëkk ak ñi nga xam ne nii ne ñoom Mor Cissé Kese Ñamadou di nuyu ñi nga xam ne ñoon ñëw ñëpp di nuyu Maria Fatoumata Cissé mi nga xam ne sunu taaw la papaam di Matar Cissé yebalee ko mu ñëw représenté ko depuis Medina Yàlla ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ñi fi teew ñëpp El bu Dramé ah donc ñu ngi nuyu Touba Parxa di nuyu euh, ñëpp koo xam ne ni rek mu ngi ci gox bi bu ñu limee dañuy juum di nuyu ki nga xam ne nii wax dëgg yàlla sunu xarit sunu soppe muy sooyu ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Muniru Cissé dëkk Daaru Salaam ñu ngi koy nuyu bu baax di wax ne ñëpp teew nañ am na ñoo xam ne bëggoon nañ amoon nañ yéen teew ci yàlla def dogalu ko teewul mais ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp donc loolu daal mooy kaddu gi nga xam ne bëggoon nañ ko tënk tey ci final bi di rafetlu ñu fi teew ñëpp di leen gërëm yéen waa seen xewal gi TV di xam ne wax dëgg yàlla lépp lu ñu leen woo rek du ngeen ñu tànqam lu yéen ci ñëw rawatina ki nga xam ne mooy seen kilifa Demba Ndiaye ñu ngi koy jaajëfal di ko gërëm bu baax a baax ñun daal suñu vision mooy que gox bi ñu liggéey ko ànd ceeg la jeunesse ànd ci képp koo xam ne nii rek vraiment gëm nga ne war nañ mën a ànd ak ñun yóbbu gox bi foo xam ne day mucc ayib ñu ngi ci tàllal loxo ñëpp di ci woo ñëpp daal xeebuñ kenn bàyyiwuñ kenn 2021 bi donc ñu ngi ñaan yàlla mbas mi jeex fi takk waaw ba xéewal seen xewal gi TV dem ba doon télé yàlla na ko yàlla def ci 2021 bi di souhaiter ñëpp bonne et heureuse année la population rawatina particulièrement la de Darou Salam ñu ngi souhaiter ñëpp bonne et heureuse année année de réussite bonheur paix prospérité lépp loo xam ne nii wax dëgg yàlla nit a nga koy am muy projet yal na ko yàlla def li nga xam ne nii nag mooy dund bi muy bay bi mbay mi nga xam ne gox bi ma nekk loolu la ñuy yëngatu yàlla na yàlla def 2021 bi prix gerte gi yokku ñu bàyyi chinois yi ñu jënd prix bi gën a yéeg suñu mbokk baykat yi jaay seen prix yi nuñ ko mënee mu suqale ko ba déwén ñu mën a produire lépp li nga xam ne ni mooy suñu jot wax dëgg yàlla waaw donc loolu daal moom lañ ñoo résumé ci kàddu yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp